alors euh, xam nga da nga démissionné de manière fracassante. Mhm. Euh, mu am un état de fait situation bu justice bi nekkoon bu taxoon nga démissionné à l'époque on était dans la tendance de la traque des biens mal acquis. Mhm. donc nga démissionné nga engagé wu tout de suite en politique et puis xam naa xam nga rek tamit Sénégal moom dañuy dañ lay yëkkati voilà dañ lay yëkkati mais duñ la duñ la accompagner accompagnement euh, bu bu yàgg ngeen engagé wu en politique et les résultat électoraux ne ne ne suivent et puis après cette démission là justice bi diggante 2018 bi nga démissionné ak 2024 mais justice bi da dafa dafa bëgguma ne justice bi dafa bëgguma ne dafa nërmeelu mais tourmente bi dafa gën a bëri euh, au sein de la de la justice euh, sénégalaise euh, bi ñu génnee 2018 y a eu le procès euh, Khalifa Sall ak nu mu demee liñ ci mën a wax yépp ñu dugg 2021 la page Ousmane Sonko les péri nu mu tudd les différentes péripéties euh, judiciaires de cette affaire la ñu dugg 2022 justice 22 justice bi aussi au banc des accusés ñu dem sax ba euh, gars yi amatuñu benn respect ci li nga xam ne moom mooy justice sénégalaise euh, ñu génn tuuti xam apaise am nekk ci apaisement duggaat nañu ci tourmente ci tourmente judiciaire et puis mbir mi dafay gën di en dafa mel ni cancer euh, buy gën di buy gën di avancé ah buy gën di métastasé wu moo tax ma ne la yow da nga démissionné woon euh, engagé wu en politique pensant que mun nga am impact ba régler affaire yi vous pouvez vous contenter d'une victoire morale mais est-ce que situation bi gënul yées kë li nga doon li nga doon li nga doon ŋaañ. malheureusement euh, Maymouna dañ koy constater xam nga ku ne sa. Euh, looy mën a def rek mooy euh, sa réew benn moment su la soxlaa nga jéem a def sa kéemtalaay kattan nga jéem a def loo mën sooy xool euh, ñun suñu taxawaay ci ci justice mën na am am na magistrat yu ñuy seetaan ñun ak ñeneen on a combattu à l'interne magistrat yi nekk di combattre à l'interne kenn mënul xam seen liggéey bi ñu def parce que lii xew justice neexul waa justice neexu leen neexuñu ñu bokk ci benn corporation boo xamante ni euh, pratiquement moom moo waroon garantir la paix sociale garantir euh, démocratie garantir l'équilibre équilibre yi war a am pouvoir parce que justice amul presque pouvoir bu ko ëpp doole mais ñu gis ni justice boobu ñu tënk ko justice boobu nekk euh, l'objet de critique depuis longtemps loolu neexu leen ñu ngi ci def ñenn ñu ngi ciy def lu ñu mën nag waaye ba léegi situation bi noonu la nekkee mais ñun gis nga euh, euh, Maïmouna man premier acte d'engagement publique bi ma jël c'était en 2015 te man lépp li ma def dama ko bind 2015 en tant que magistrat substitut procureur général ñu toogee ma def 10 ans combat interne ñu koy def biir UMS ma génn ma ne fii ci biir mënatuñ fi am solution article bi ma bind def ko ci presse bi ci préambule bi loolu laa wax def nañu 10 ans de combat interne amul lu mu jur léegi ñu ngi adressé wu Sénégalais yi pour ñu xool ñu bàyyi xel justice ma tuddee woon ko le conseil supérieur de la magistrature l'indispensable réforme c'était en 2015 boobu article ñenn ñi lire lañ ko mais amul ñun retentissement bi ñu ci bëggoon moom mooy la justice nekk au centre des débats sénégalais yi xam ni justice moo yor réew ñu jóge ci loolu ñu faloon ma membre conseil supérieur magistrature ñu nekk ci mu am loolu nu muy euh, nu conseil bi di doxee te méngoowul ak yoon man en tant que membre élu ma def ci juróom-ñaari weer te mandat ñeenti at la am ma démissionné conseil supérieur laa jëkk démissionné en février le 1er février 2017 bi ma démissionné tamit bàyyiwuma dama def lettre publique adressé ko Sénégalais yi ne leen attention fu mu toll nii justice bi ni ñu ni ci politique di duggee dafa nar a yàq réew mi ñu def sacrifice boobu ñun démissionné mais ñuy continuer di nekk magistrat quinze mois plus tard nga def sacrifice sur toi-même nga bàyyi li nga gën a bëgg comme ni nga ko waxee sànq mais mu nekk benn sacrifice boo xamante ni c'est un combat nga def ko nga ne damay dugg ci politique bi nga ci dugg nag aussi dugg ca gëm yàlla xam ni que mën nga dugg ci dara mu sotti mu baax wala mu bañ a baax mais suñu toogoon di xool ñi nga xamante ni taxaw nañu ci réew mi xool dara gis ni lii fu mu jëm baaxul nit ñi def ci lu ñu mën man def naa ci li ma mën def naa ci li ma mën à l'interne démissionné naa ñaari yoon dugg naa ci politique di proposer ay solutions chaque fois loolu laa ci mën donc malheureusement li ñu bëggoon parce que li ñu bëggoon dëggantaan a du ñu toll fii sacrifice yooyu yëpp dañoo bëggoon mu am njëriñ ñu ni justice bi changé na réforme yi nga xamante ni ñi fi nekkoon bi ñuy dem élection 2012 diggé nañu Sénégalais yi danañu changer justice parce que à l'époque xamoon nañ ni justice problème la ci réew mi réforme yooyu defuñu ko et tout à fait le contraire li ñu waxoon la ñu def donc malheureusement Euh, ñun benn déception la ñuy am comme tous les mais jàpp nañu lépp lu ñu mënoon ñun lu nekk ci suñuy euh, doole def nañ ko. malheureusement. Euh,